ñoo ngi leen di joxe xikma bi nag fii ci euh, maxaat xikmatul yawmi li tarbiyal islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk Thiès parcelle numéro 31 cité ouvrière euh, téléphone 77 633 77 56 wala ci fixe bi 33 951 49 44 ci ñu bëgg a bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji. tey ñu fasen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te toxalee ko ca téeréem mu mag boobu ñuy wax silkul jawaahir di caq bu wurus nga xam ne lépp ay xikma la mu cay nettali ay waar yu am solo yoo xam ne day dolli pas-pas di dolli ak ngëm di dolli yaakaar yàlla di dolli ragal yàlla di dolli itam bëgg yàlla xikma bi dog bi sëriñ bi mi ngi koy nettali rek ba léegi ci mbiri àjjana ak ya fa xew euh, sëriñ Tuba dafa wax ne ku ñuy wax kaabul ahbar euh, radiallahu anhu nee na dama laaj yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam garab yi àjjana nee na yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ma garab yi àjjana day ay garab la yoo xam ne ni seeni car du wow eh, seeni xob du rot seeni meññet du nag waaye garab ga ca gën rey nag mooy garab gu ñuy wax tuubaa eh, cosaan lam saxe mooy wurusu durra ay bànqaasam mi ngi jóge ci eh, lu wurusu ñu wax zëbërjët ay xobam mi ngi jóge ci wurus wu ñuy wax ndus nee na garab googu ñuy wax tuubaa nga xam ne moo gën a rëy ci garab ya nekk àjjana amul benn néeg walla benn xubba wala genn kër lu dul ne am na bànqaas bu jóge bu bokk ci garabu tuuba gu tiim foofe di ko keral ak di ko neexal ak di ko seral kon àjjana képp koo xam ne di suñu borom dogal na nga dugg fa mënoo ñàkk a ci garabu Tuuba loola yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax ñu mën ko misaal fii ci àdduna nag misaalum jant ndax ab jant kawe na fépp tiim na ñëpp te amal na njariñ ñëpp loolu itam Sëriñ Tuuba waxoon na ko ci liggéey bi mu doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mujj naa fa mel ni jant surtout bi ka shamsi te waxoon na ko sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ne leen ab jant nag kon a xam ne ni àgg na fépp tiim na ñëpp te amal na njëriñ ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba tey di nettali Kahbul Ahbar xibaari garabu àjjana rawatina garabu Tuubaa ga ci gën a rëy ne ko am na meññet yu neex moom garabu Tuubaa yoo xam ne nii seenu neex it mënee su misaal ci àdduna nee na garab ga taaru na taaru goo xam ne nii rafet rafetaay goo xam ne nii mënee su ko misaal sax ci àdduna kenn mënu koo misaal nit ndax kenn ma kenn mës a gis wala nga mës a dégg lu na mel Seydina Ali radiyallahu anhu dafa wax ne àjjana am na ay garab yoo xam ne nii ci wurusu fidda lañu leen saxale seeni xob maanaam fidda la ak zahab maanaam wurusu xaalis ak fidda ak zahab moom lañ leen defaree xaalis ak wurus nee na garab yi na dafa wuuteeg garab yi àdduna lool mhm. ndax euh, garab yi àjj na ñoom seeni seeni reen ci kaw lay nekk maanaam ci jaww ji lañuy sax seeni meññet féete suuf jëm suuf nga xam ne boo soxlaa da ngay daldi rek dagg waaye du jar nga yéeg wala ngay sànni dara mhm. garabi garabi àjjana noonu lañu ñu mel garabi àdduna nag ñoom ci suuf lañuy sax seeni caraki seeni meññet nekk ci kaw ndax ndax kër guy jeex la garabi àjjana nag demeewut noonu euh, ñoom dañuy sax ci jaww ji seeni meññet jëm suuf féete suuf te nee na garabi àjjana suuf sañ sax mooy suufu misk ak anbar ak kaafuur ci suuf soose lay sax garabi àjjana nee na bu ko ngelaw uppee nee na misik bu neex mu cay génn boo xam ne ni kenn mës a dégg lu neexee noonu ci àdduna bu ngelaw uppee xob ya nañuy dalante ab misik lay doon bu neex a neex boo xam ne kenn mës sa gis lu nu neexee garab yi na seeni meññet amuti xoox wala ay saal comme ni ngay ni mu amee fii ci àdduna garab yoo xam ne boo boo lekkee it dana amut xoox booy sànni amut ay der yooyu dindi lu mel ni banaana doog a lekk la ca des amut ay càmpoor lu mel ni màngo garab yi àjjana aajowul raxas seenu meññet boo koy lekk du jar raxas da ngay xewul rek boo xewloo ba noppi itam aajowul ngay raxasu ndax dara du la ca taq amut loo cay sànni itam ni ni ki meññetum àdduna ni mel amu ci yoo xam ne ni dañoo wex wala safuñu suukar bu baax wala dañoo forox yooyu amul ci garab yi àjjana loolu ci àdduna la am kon nag yàlla na nu suñu borom defal tawféex ñu bokk ci ña nga xam ne ni ñooy jariñoo garabu tuuba bu ëllëg ak garabi àjjana yépp waaye loolu nag la koy maye mooy gëm yàlla bu wér tey jëf ay ndigalam tey wattandi ay tereem ndax alquran kat noonu la ko waxee inna allazina amanu allazina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa usnu maab suratul rax di aaya 29 sëriñ Tuubaa sunu yaakaar it wax na lay tax bu ëllëgee ñu dundee garabu Tuubaa nee na faaw nga doon ab jaamu yàlla bu mat sëkk doon ab murid saadix bu mat sëkk bu dëggal tamit euh, di liggéey bëgg sëb sëriñ lool te di ko addiyal tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati ñoo ngi soññaat mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp te liggéey waa daara Hikmatul mi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir képp koo xam ne nii yaa ngi ciy def sa dara wala nga eh, di ñu ci jàppale yàlla na nu suñu borom dundal ci Tuuba àdduna ak àllaaxira ci barkeb Cheikhul Xadim ku ci bëgg a def dara wala nga bëgg ci xam dara nga woote ci 77 633 77 56